mu defoon fi benn vidéo boo xamante ni di def ay seede ci doomam euh, ñu bari vidéo boobu touché leen tey bu ñëwaatee ci màggal gi nag ànd ak ay mbokkam ñëw gungeel doomam ah wax dëgg yàlla nag du ñàkkum sànni ci ay kàddu yaay nuyu naa la. maa ngi lay fay guy gi. ñu ngi sant yàlla bu baax mais maman nii nga def. waa nii laa def rek ci sama bisu doom ji kontaan rek macha allah waaw kay parce daaw defoon na ko ren ñu defaat ko nii. alaaji Fàllu moom ku koy lebal na ko lebal lu baax ndax loo ko lebal dalay fay waaw may koy sant nag di ko gërëm bu baax a baax kontaan ci moom kontaan ci moom trop maam mënuma koo fay bañ nañ ko ba dan naan maam man moom laa bëgg loolu àdduna yëpp xam na ko parce que fi ma teg la maam daf ma bëgg safoo ma faale woo ba àdduna bi yëpp xam loolu ma koy sant di ko gërëm di ko ñaanal rek barke Seydina Muhammad ñaan du doy chaque jour maa ngi koy ñaanal nee naa ko demal ca kaw ca kanam bu ragal dara gàcce ngaalaama parce que lekkoo dara bàyyi say famille kenn xiifu kenn marul barke Seydina Muhammad papaam gërëm na ko man mii ji ndayam tamit gërëm naa ko trop barke sëñ Touba maam jaaxalu ma billaahi jaaxalu ma benn yoon ma kontaan ci moom nag bisam bii yàlla na yokk ba mu yëg ko lépp lu mu am ren bu déwénee yàlla na yokk ba àdduna bi yëpp teg ci seen bët parce que barke sëñ Touba ca kaw ca kanam rek billaahi mooy li ma ko rek gàcce ngaalaama tey maam bés bi doon bés boo xamante ne nii bés bu mu fonk la ñu coono yi nga xamante ne tamit da koy def donte borom bés bi lépp loo ko ci defal rek daanaka fayoo ko euh, maam geste yi muy def ci bés bi di jël ay teraanga di ko indi di ci daj ay coono ngir euh, daagu digganteem ak sëñ Fall yow miy woy juram lan ngeen ci mën a wax ja digganteem ak sëñ Fall moom dafa yàgg parce que bi mu amulee dara la bëggoon sëñ Fall te yàlla rek tax ba léegi nii gàcce ngaalaama lu mu am rek yàlla ak yonent bi ak ñaanu waajur ak ñaanu baay ak ñaanu alaaji Fàllu Mbàkke ak mbokkam yi barke sëñ Tuubaa maam lekkul dara bàyyi benn mbokkam mbokkam yëpp ko gërëm billaahi li muy def nii ci mbokkam yi la ko njëkkee ñëpp lay defal maam bàyyiwul kenn maam daal dañ koy ñaanal rek gudd fan ak wér yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam a kanam loolu lañ koy ñaanal. Hmm. xam naa ne bu moom tam <laughs> d'accord lan ngay wax sa lan ngay wax sa mbokk yi nga xamante ni ñëw nañ tamit accompagner la say jigéen ñi nga dendal euh, ñëw ànd ak yow tamit. kii moom sama ami d'enfant la ñun ñoo bokkoon fi ñuy sëy yàlla boole ñu ñuy ànd te yàlla rek tax muy Dieyna mi ma koy sant di ko gërëm ku baax la kii sama raq la ñoo bokk nday ak baay maanaam topp sax si man am na ko topp ci man ba pare muy doog a topp moom mooy yaayu Fatou Kiné mi ngeen di dégg mu yëkkati Fatou Kiné nag may ma ko te yàlla rek tax te yàqu xaar ma ñëw ci yow <laughs> ah, de xanaa kontaan ci di ñaan yàlla ñu commencé bisimilah rahmaani rahim joxal ko ci alhamdulilah rabil alamin di sant bu baax miis te xam ne wax dëgg fa yàlla liggéeyam wallu si na ndax bu dee coon rek daj na ko te xamoon na ne lii yàlla dina ko fay miis bu amul woon doom du ñuy tudd ci àdduna man ma xaaj te xam ne say dara jaru ko fi macha allah tubaarkàlla mu nekk nit ku baax maam ku ko gis kaf nga koy gisee ci écran. mais nit ku baax la te jikkoy baax boobu ci yaayam ji la ko jëlee nekk nit nit ku mën ku mën a sëy nag di sëykat dëgg di sëykat pur ndax yaayam sëy rek la xam yàlla nag mooy weddi lépp ba yàlla dogal tii tey jii mu am mais macha allah tubaarkàlla di ko ñaanal rek mu koy def ay ati ati at ci daraja yonent bi sëñ Fallou bi mu woote mu yokkal ko ay xéewalam lu baree baree bare bare maam nag ay mbokkam gërëm nañ ko de barki sëriñ Babacar Si ay mbokkam ba ko njëkk gërëm nag keneen doo ko gërëm donc mu ngi euh, li ñuy wax ni diw buñ ne baax na ndax mbokk yaa ko wax góor gi ñu gis tey euh, euh, Mame Ndiaye di seen doom ñu gis du ma coono waaye gestes yi nga xamante ne daf koy def ci bës bii nii yéen ñi nga xam ne yéen ay way juróom lan ngeen ci mën a wax. ah maam xanaa nekk suñu doom ju baax rek nekk ab jullit di taalibe wax dëgg fi yàlla bu taxawee nii tey def Kazu Rajab bi def na lu mu war a def ndax ay waajuram ñu ko meññ ak maam ñu ko meññ ci diine lañ ko xamee nitu diine la diine moo jur moo moo moo moo moo ay maamam lañu ay baam nitu diine lañu kii nag moo moo papaam la duma ci wax sore ci dama koy jox ñu ko wax Thierno Seydou Dia di magu papaam kon nag Thierno kaddu laa bokk tey seen doom euh, dëgg ma lu euh, tante bu mel nii mu di bésu sëñ Fallou euh, ñu gis geste yi nga xam ne daf koy def aussi tamit yéen ñi di ay woy waajuram Ah, boo leen déggee à chaque fois ñuy wax ci seen doom yow mi nga xam ne yéen ay waajuram lan ngeen ci mën a wax maam kaay nii. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatu gannaaw gu ñuy sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi leen di nuyu di ziar ñëpp xanaa kay di gërëm suñu doom bii di maam Ndiaye ndax maam Ndiaye maag baayam ñoo bokk benn baay yaa ngi dégg ñu dëkk nag ci dëkk bu ñuy wax leeraabe moom mii foofu la soqee ko leera bi donc nekk ay ay maama nekk ay xaafis alquran maamam yi ñu koy wax béy di penda donc su defee lii ah, du ñu bett ndax fu mu juddoo la ci deret bu mu juddoo la maam Ndiaye nag ñu ngi koy gërëm du ko sant ndax wax wax dëgg yàlla mu ngi béy waaram ci ci xeet bi ci lépp ndax ñu ngi koy dégg gis ay action yu muy def donc ñu ngi koy gërëm du ko sant ndox lii su ko defee war na ñu ñu tecce fekkee ko ci teew ci ñu koy gërëm bu baax a baax a baax mu ngi taxaw ay mbokkam mu ngi taxaw baayam bii baayam jooyul dara ay mbokkam jooyul dara ci mbokk yaayam aussi la même chose kon nag ñu koy ñaanal yàlla li muy bëgg yàlla na ko ko yàlla may ci barke yonent bi ci barke sëñ Fall mii waaw wa rahmatulah. papa tey sa doom. li nga xamante ne organisé na ko. dooree woon ko ci mburoog chocolat. ba tey mu yeewu ay cinq nag. ak ay ginaar ak xar. yow mi nga xamante ni yaa ko jur. lan nga ñu mën a wax eh, ci sa doom ji. waaw buñ euh, sante yàlla ba pare julli ci yonent bi. waaw ñu ngi koy gërëm di gërëm yàlla di gërëm yonent ba mais bëggoon naa nga may ma ma wax ak tuuti sama mbokk tukulóor yi ba pare parce que mbede salmin moon anda o ko biye moon emin jetta allah emin jettamo parce que koo cuguleel moƴƴo waaw li ma wax ci loolu mooy moom xale bu baax la parce que bu baaxul woon ay mbokkam yi ay samay mbokk yëpp duñ taxaw mais samay mbokk yëpp gis nañ li muy jëf ci man kon nag jërëjëf lu ma koy ñaanal mooy gudd fan ak yàlla sàmm ko rek loolu la lu ci des moom jarut a ñaanal parce que xale bu baax la bu yaru la liggéey rek la bëgg naka jekk ba muy xale ba léegi dafa bëgg a nekk kenn li mu bëgg li yoon bi mu nekk ci yàlla na ko ci yàlla jàppale te lii muy def yàlla ko ci yàlla dooleel waaw suñ borom moo yore doole yàlla ko yàlla doole ci barke salaatu fatiha maa ngi koy ñaan. maam tey maam euh, nga. de wax na dëgg papa wax na léegi maam ku baax la doom bu baax la ñëpp a ko ñaanal wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal rek doom nag doo ko doo ko ko gërëm doo ko teel gërëm danga koy ñaanal yàlla. waaw ci kaw ci kanam rek maam moom bu soobee yàlla amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am yàlla naka yàlla aar yàlla suturaal ba toppatoo na ay waajuram papam xiiful maru raflewul yaa ngi dégg ay rakkam tamit toppatoo na ñëpp bàyyiwul kenn diw nag nee nañ ndax baax nañu ne ndax mbokk yee ko wax moom nag ay mbokkam a ko wax ay mbokk ma ko wax dëgg yàlla maam ku baax la caa gis sa wayjur damaa kontaan ndax nit amul ku dul mbokkam lii tamit day firndeel que ni maam kilifa gi muy wax à chaque fois mm. euh, tey man ndax say wayjur wu ñëw mm. ànd ak seen i mbokk ñëw gunge la ci bés bi mm. donc nit ku am kilifa nga man mën naa ko seede tey waaw damay kontaan rek comme li may wax chaque jour rek bu nit ñi di wut alal wutal nit ñi ndax boo leen amee am alal te man tukulóor laa te dama cee feer ndax fu ma toog dama koy wax dama leen naan leeraabe laa dëkk élimaane élimaane yaay sama maam nit nag balaa nga koo xam ay mbokkam taxaw maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam yàlla bàyyi leen fi ba ci kanam may leen gudd fan ak wér gu yaram bañ leen di weer ak a weer kontaan naa trop xaw ma lu may wax wax fa dëgg yàlla ki sama maam salaamaaleykum <laughs> waaw man xanaa di ko rafetlu rek man kii bi ma koy bëgg boobu xaw ma ne sax mbokk la di ko suivre tout le temps sama doom yi bëgg ko boobu xaw ma ne woon sax la par la suite laa ko xam mais nag man wujjam laa wujj nag xam nga du wax du wax ci moroomu kii wam <laughs> waaye nag n'empêche xam naa ne daal am na ngërëm waajur loolu moom lu ma leer la parce que ay waajuram dañuy wax may dégg xale nag bu amee ngërëm waajur tegi ci yoon rawatina mu nekk taal bi Serigne Fallou bu mu ragal bu mu tiit ca kaw ca kanam yal na ko yàlla suturaal sàmm ko aar ko lu mu man ren yal na man déwén lu ko ci barke sëñ Fall jërëjëf jërëjëf am donc euh, kon xam naa ni dañuy def nii rek euh, dalal gan ñi euh, tey li ñuy wax spécial màggalu Kazu Rajab ak Mame Ndiaye Savon